salaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu salaamaaleykum mbokk yi ñu fi ci seen Safina TV ñu am tay mbégte mu reuy ñëw ak yéen pour lépp li nga xamné ni dafa ittewoo wu ñu wax environnement mu di amee fii ci sen Safina TV de bu nek euh ci li ñuy diffuser li nga xamné ne nii émission bi nga xamné bi émission de transversal. la su ñuy wax transversal moy li nga xamné dafa yaatu environnement moy lépp li nga xamné li mo wër kon lu nu wër il faut ku nekk si ñun muy yéen ñu ñuy déglu man mi toog ak yéen ñu jéem échanger waxtan ak yéen ci li nga xamné ne lii moom moonu soxal ñu ñap lutax mo moo xomoot yi gis nañ ne euh, réew mi nu mel adduna bi nu mel ci ay changement radicaux ci ay changement yi nga xamné de comportement ci ay changement yi nga xamné

waxtaan lu jëm ci réchauffement climatique dañuy waxtaan lu jëm ci déforestation lépp li nga xam ne lii moo ittewoo moo nekk encore di yàq li nga xam ne lii mooy aalam bi dañuy dugg encore ci lépp li nga xam ne lii moom mooy nekk ci suñu ay ressources naam ñu ngi koy waxtaanee mooy Sénégal ci ay at yu néew dañu utiliser pétrole mais naka lañ koy utiliser donc il faut que ñu am ay nit yi nga xam ne waxtaan ak ay spécialistes yi nga xam ne.

waxtaan ci l'écosystème fële ci Maroc waxtaan ci encore déforestation ak reboisement Sénégal donc day plateau bi nga xam ne ginnaaw ba mu tegee ay programme teg ay plan il faut tamit mu am ñu koy accompagner moo tax seen télévision euh, TV euh, Safina indi leen ko pour accompagner téléspectateurs yi ci seen nekkin nekkin gi mooy ci énergie renouvelable nekkin bi mooy ci solaire nekkin bi mooy ci lépp li nga xam ne li këriñ la lépp li nga xam ne li solaire là comme tey loolu il faut que waxtaan ak auditeurs yeeg auditrices yeeg téléspectateurs donc la gestion des ordures gis na ni mbalit mu mel Sénégal lu tollu ci euh, ay tonnes 5000 tonnes de déchets ordures ñu ko yob yóbbu fa la ñuy wax mbëbës dañ ci ñëw ci ay reportage reportage yooyu ñuy def danañu ko ñëw indi leen ko xamal leen lan moy malit malit lan moy jëriñam parce que c'est de l'or l'ordure dañ ci ñëwaat wax leen pratique bi fu ñu koy jëlee di jaar ak camion yi di ko yóbbu ba mbëbës dañu leen wax encore système de tri bi am bi war a am ak système encore bi nga xam ne bi transformé mbalit moomu ci ay anam yu sell kon nag tey lii ñuy waxtaane tey muy environnement pàcc boo jël rek pàcc boo jël rek émission la kon nag danañuy dugg ci li nga xam ne lii mooy la gestion des ordures ak la collecte et du tri et même le transport wax encore li nga xam ne buujumaan yi ñoo koy dund fële ci mbëbës buujumaan yooyu danañuy dugal lu toll ne 20 millions en retour ginnaaw ba ñu 20 millions 20 millions yooyu ci lan lay nekk ci que lañ koy doxal kon nag danañu jógee foofu encore dem lu ministère de l'environnement. environnement waxtaan ak encore service yi nga xam ne décentralisé lu jëm ci li nga xam ne lii moom environnement. ONG yaa ngi fi di xeex li ñuy wax nekkinu bu sell ci environnement mais tamit est-ce que doy na doyul lu melni il faut mo am relais relais bi mooy sen satina TV indi leen solution à ces problèmes solution à li nga xam ne lii moom lay nit ñëpp di dund ñoo ngi koy mais des solutions existent yan mooy exister mooy des recommandations dana ñëw wax askan bi xamal leen ne ginnaaw ba ngeen amee problème bi ban recommandation lañ leen di indil Safina TV di leen ko indil waxal waxtaan ceeg euh, téléspectateurs yi ci seen ay émissions yi di ñëw kon nag defe naa ne ñoo ngi leen di woo yéen téléspectateurs yu Safina TV di woo les sénégalais ak ku fi nekkul nekk bitim réew que ngeen branché ci Safina TV la télé de la référence moom euh, ouverture dans la diaspora et l'Afrique moom encore bi leen di indil xabaar yu ils seront donc utiles informatifs et éducatifs donc lii moo ñu encore pour expliquer ki euh, Safina TV la recherche d'une solution à travers l'environnement kon def na ni dal euh mbok yi di développer encore notre partenariat avec les institutions lu mel ay lu comme ay li wax euh, conseil économique social environnemental lu mel ay assemblée nationale lu mel ay acteurs sociaux ay leaders d'opinion dañu leen fi invité ñu tok ak des experts ak des consultants encore parce que on travaille en série d'action avec yenen télé yi nga xam ci diaspora bi ak bitim réew kon nak à travers mon carnet d'adresse ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk am nañu lu reuy pour indil ko euh, téléspectateurs yi ci sen émission yi ñu dégtal fi ci Safina TV ku ko bëgg jot tamit nga ko jot ci YouTube YouTube dañ ko ubbi jagleel leen ko yéen képp nga xam ne am nga ay question ci après nos nos nos nos émissions nga woté encore fi ñu indi la ci ay xabar yu wo parce que lool mo ñu fi teg lool mo mo fi indi kon nak euh, ñu ngi wax ñëpp tay

ñoo ngi leen di bàyyi xel ci seen ay problème seen problème ñong koy dund seen problème ñong koy gis lu jëm ci inondation lu jëm ci cap de vie lu jëm ci euh, désensablement lu jëm ci assainissement lépp li nga xam ne li environnement la mooy li nga xam ne moo nu wër dañuy ko waxtaanee fii fii nag mooy indi solution fii la ñuy indi encore des recommandations fii la ñuy sensibiliser fii la ñuy pro euh, euh, prospecter fii la ñuy def lépp kon nag toujours ci sillage boobu toujours ñoo ngi leen di waar encore ci cette émission yi ou bien euh, diffusion téléfilm ci euh, Safina TV international donc defe dal daal euh, mbokk yi déglu ngeen ñu da ngeen ñu ci suñu émission environnement environnement bi nga xamné bi dañ dañu ko jagleen environnement bi nga xamné bi dafa nekk li nga xamné ne c'est une solution ci problème yi nga xamné ñu ngi koy dund Ñu ngi koy dund ci changement climatique waxon na ko sànq moy gis na ne au mois de décembre tàng na trop lan mo taxou mu comportement nit ki la il faut mu waxtaan nag nos concitoyens ci seen comportement comportement ban tamit modi di gis na ne ay gaz à effet de serre ban problème la kon il faut ñu waxtaanee ci encore ak suñu ay mbokk kon nak yéen dafa melne ñun ak yéen ñoy def ben link ñun ak yéen ñoy waxtaan pour indi solution à ces problèmes donc defe naa ne daal ci tënk euh, Safina TV dafa ñëw pour indi.

commission atmosphérique ci lan ci ay cuuraay ci lan ci ay environnement scolaire même ci biir école on a fait fi def émission pour waxtaan ak élèves yi lan environnement scolaire environnement scolaire mooy encore xamal élèves éducation à l'environnement lan mooy njëriñam gis nañ fi ay fraude gis nañ fi ay tricherie lan la indi pour indi solution encore ci loolu kooku tamit dafa bokk ci environnement scolaire am encore environnement financier ci banque yi loolu tamit war nañ fa dugg encore def fa ay reportage am na yeneen yi nga xam ne tamit ay environnement la économique dañ koy wax parce que ñoo ngi waxtaane xaalis bu bees ñoo ngi koy wax éco éco boobu tamit danañ ci indi émission waxtaan ceeg auditeurs yi parce que loolu yëpp dafay defar parce que yéen ñi ñuy seetlu yéen ñi ñuy déglu am na fi nga xam ne fii yéen ñi ko gën a xam naam mais tamit ñu mun na leen eggal fenn fi nga xam ne yéen eggu leen fa donc ci ay questions yi nga xam ne di ngeen ñu ko woo posé ñu ko ñun tam ñu indi leen ci ay réponses des solutions appropriées à ces questions posées Comme defe encore ci émission pour waxtaan lan mooy déforestation lan mooy littoral gis na ne géej gi nit ñaa ngi sax tax ñi di ban avantage la am gis na location magasin moo cher location kër lan moo tax loolu yëpp ci ay kon Dakar ñëpp vers Dakar te état indi na ay programme état indi na ay plan plan yooyu indi programme est-ce que nous sommes top, est-ce que nit est-ce que c'est des questions yi nous posons toujours et ces questions-là demandent une réponse kon une réponse bobu ci sen Safina TV dañuy une réponse une réponse ci c'est ci altine bu nekk altine bu nekk dañuy ak ak ak ñun ñoy def ben partenariat partenariat bi nga un partenariat fécond fécond ci ci transversalité ci lan encore ci communication qui sensibilisation ci information juste et sûre parce que reportage dina am doxantu dina am dugg ci kër yi danañu am loolu yëpp day defar émission bi te moom mooy habiller émission bi parce que émission il faut nit ñi xam la mooy environnement c'est le parent pauvre des journalistes mbokk yu bëri di ay journalistes dañ ko daw lu tax ñu daw ko parce que comme bi liñ ciy am

yéen ak ñun ñooy créé benn partenariat mën a waxtaan pour indi une solution bi nga xam ne bi une solution à la gestion de l'environnement daa jeex waaw tàggatoo tàggatoo ah tàggatoo hein? ah, euh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci lii ñi nga xam ne li moom la ñu indil seen émission télévision bi nga xam ne bi Safina TV di ko indi moo di opportunité la ci lépp li nga xam ne lii te war ngeen ko xam seen mbokk Abdoulaye Diallo dina indi te altine bu nekk muy ñun ak yéen ñooy def benn partenariat ñooy waxtaan pour trouver une solution à ce problème environnemental mooy lu ñu wër wax na ko sànq kon nag maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ñu ak yéen ñooy solutionner ce problème environnemental merci